jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna mbokki ñu ngi leen di nuyu rek saa su ne nañ leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221 point com ni ñu ko doon defee rek di leen dalalal ay ndaanaan di leen di Sénégal Buzz waaye ñu dalalati koo xamante ne nag miin ngeen ko ci maison de presse bi di Sénégal Buzz 221 ñu toog ak moom nag fas yéene waxtaanee te ak ci li nga xamante ne di actualité ak xew-xewu ñu ngi lay nuyu mine seytaani rajim bisimilah rahmaani rahim di sant yàlla bu wér di ko sant di ko sant sant bi may sant yàlla nag man Selbé Ndom xam naa fu mu commencé mhm. mais xaw ma fu mu yem mhm. di julli ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam mu Seydina Muhammad ah, xayru xalqilaa mhm. ah di euh, ziar cheikhul xaddim di gën a yéesa sama njibbal ci moom moom sëriñ Tuubaa mi nga xam ne maa sukk ca barabam ba ne ko mbàkke aslamtu nafsi ilayka yaa xaadimal maxtaar ne ma udd xul ça veut dug dafa daf ma ni duggal mhm. sant yàlla jul ci Seydina Muhammad di ziar sëñ Muntaxa mhm. léegi dañ koy dàkkentale sëñ Muntaxa Dabaax mhm. loolu macha allah fierté la di ko ñaanal Mbàkke Balla mu yàgg fi lool te ànd ak wér sëñ Muntaxa Dabaax Malick di ko ñaanal mu jàgg fi Mbàkke yàgg fi lool yaa yàgg fi loolu ba dootoo xàmmee kenn. amiin barke bi laa ilaha illallah muhammad rasulullah ah kenn ku nekk nag am nga xarit. Mhm. yéen da xanaa su ma laajee sama xarit bi dégg ma ne mii joxoñal ma sama xarit bi sëñ Moustapha Sy Jamil mu baax mi ak ah, sa uh-huh. sëñ Moustapha Jamil rek laa xamoon dañ maa wax ne Jamil uh-huh. papam laa gis mu ne ma Jamil uh-huh. di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla mu gudd fan lool amiin amiin si Malick guddal fan lool ànd ak wér lool yàlla bàyyi la sunu kanam as siddiqu keroog benn Tiijaan daf ma woo benn taal bi sëñ Moustapha ne ma xarit suñ Moustapha as siddiq ma ne ko waa da ngeen jël as siddiq mu ne ma yàgg naa <laughs> ma ne ko alhamdulilahi rabil alamin <laughs> wallahi yàlla ma wax loo ak siddiq maanaam di nuyu Sénégal buzz deux cent vingt et un mhm. yi moom yéen a téye buzz bi nii <laughs> waaw waaw ci ñaari loxo yëpp ngeen ko téye macha allah ah, yàlla yàlla yokk amin yal na yàlla yokk ah ni mu ko waxee rek ngi nuyuwaat sang boobu di nga xamante ne moo di sëñ Moustapha Sy Djamil mu mel ni nag maman amoo ci moom sago mm-hmm. ab taalibe murit nga waaye amoo ci sëñ Moustapha ci sago parce dama ko gis mm-hmm. li ma gis ci moom mm-hmm. ku ko gisoon ci keneen danga daw langaamu ci man bu ma sañoon billaahi wallaahi wa taalaahi jour dinaa gis sëñ Moustapha tànkam yooyu ma ñu ziyaar ko bésu démb bi nga xamante ne nag ci lañ doon màggal sëñ Babacar Sy loolu mënuñoo maamam mënuñoo ñàkk nag ba dugg ci bés bi moo tax foog ñu ubbee ko tey ñàkk caaxaan bi mm-hmm, mm-hmm. sëñ Moustapha li muy def ci réew mi mm-hmm. te du ut caméra du utub journaliste bu nen ko sëñ Moustapha joxe na nag wi wala joxe na xar bi wala joxe na lii barke Seydina Mouhamed mun musumaa gis ku mel ne sëñ Moustapha Sy c'est pas parce que ni murit laa damay soxore si Moustapha si man maa gis sëñ Moustapha si xam ne sëñ Moustapha Sy wàll yu kaamil la koo xam ne leerug leerug yàlla leerug yàlla mooy leerug jant bii mooy nekk biir këram nga gis ko mu taxaw am taxawaay di yëngal rek di liggéey rek sëñ Moustapha liggéey rek lay def man de xaw ma lu muy def lépp ndax man chaque jour du ma ko gis su ma gisee ren balaa ma ko gisee déwén mu doonu baayam ba Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane alma Maktoum maanaam waaye man maa xam ne sëñ Moustapha wàllu yu la maa ko gis mu nekk ci asamaan si mm-hmm. sëñ Moustapha si maa gis yàlla suñu borom tabaxal ko immeuble ci biir géej gi château mm-hmm. ci biir géej gi ma taxaw ne leen sëñ Moustapha si ku bëggu ndox ndax dama ko mës a gis mu taxaw comme genre njoowaan ah, dañ ko defal ñeenti ci ñeenti tànk yëpp nekk ci géej gi mu ak fu muy taxaw mm-hmm. téye nii te téyam boobu gëm naa ne sëñ Moustapha day dem téyam boobu mu téye mhm. su ma gisoon mu daanu day dem ne ah waaye taxawaay bi mu taxaw téye noonu mm. nañ nañ dem ba ci kanam dinañ xam dinañ gën a xam kan mooy sëñ Moustapha man nag nañ xam ne man murit laa taalibe sëñ Touba laa ñu mhm. damaa gëm sëñ Moustapha si yàlla boole ma ak sëñ Moustapha si ma gis ko samay robinet tëjoon mhm. sëñ Moustapha si ma ko ubbil kon kalo ubbil say robine doo ko foowe wallaay dëgg xaw ma kuy foowe sëñ Moustapha si waaye du Selbé Ndom mii mhm. taalibi Sëñ Tuubaa bi mhm. moo dul fooy sëy sëtu Cheikh Ahmad Tijaani bi macha allah macha allah ah, loolee tamit doon ay kàddu yu am am solo nag mu ñëw woon ñaq dooree ko nag di kontaanaat bu baax a baax a baax ci moment waaye nag euh, comme ni ko suñu maam Selbé Ndom waxee rek euh, suñu yaay sax maa ngi juum naan suñu yaay Selbé Ndom ndax euh, nit moom la ma la woon rek nga ko mën a jàppee muy mbaax ak diine gi nga xamante ne ñëpp gis nañ ko ci moom mhm. ba mu doy ñaa mhm. si Malick yal na yàlla guddal sa waaye dañuy ñëw rek ci li nga xamante ne tey moo di suñu waxtaan gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi ko doon ñaan ci réew mi mu jàmm yaay mel ne jàmm jooju le président de la république mu ngi waat Sénégal mhm. ba ñi xamante woon teewoon nañ leen ñu bàyyi leen ku ci mel ni Assane Diouf ak Guy Marius Sagna. macha allah xam nga jàmm ji kañ la ñëw. Mhm. biñ ma diggalee sarax nen ak kafe Touba. Mhm. tey moom dinaa la ko jox. Mhm. bi ne suba la ñuy jugé Ousmane maa ngi koy nuyu mon frère. Euh, ci lañ ma wax ne naa saraxe kafe Touba bu ma dugal ñetti nen. di ko yëngal. ma daal koy saraxe woo xale yi jox leen ko. loolu yónnee woon nga ma vidéo bu yàgg. mu ngi noonu maa seede bi ma tëddee ci guddi gi laa gis géej ndox moo xam ne jën yaa ngi ci te sunu chef religieux yi nañ leen gën a jàpp bu baax a baax a baax a baax. damay wax sénégalais yi nañ am seen seetlu boo xam ne xëy na mën naa am seetlu wuñ ko. Mhm. man lu ma seetlu la. Mhm. ba chef religieux yi. toogee def seen conférence ba wax ba pare mhm. mu am koo xam ne nee na ko président nee na bàyyi na lépp ci ginnaaw bu ngeen xoolee vidéo bi mhm. barke laa ilaha illallahu ba ñu xëyee mhm. Sénégal daa sedd guy ngelaw lu sedd guy keroog noy gi ma noy maanaam ah, wallahi fekk man xam naa li xew ci laa doon wax ne ku mën a saraxe jën nga saraxe jën ku mën a saraxe ndox sotti ndox maanaam nga sotti ndox su buntu kër te am naa yaakaar ne jàmm ji dina continuer deret ji ma doon wax nag nañ ma ci baal parce que ginnaaw man missionnaire laa lu ma gis yàlla moo ma ko nattoo ndax wax bii du sama métier man du def jël ci rosi defar kaaj la nga lekk mooy sama métier mhm. mais lii dafa nekk loo xam ne lu ma sunu borom jox la mhm. maanaam te am na ñu bari ñoo xam ne nañu bàyyi seen kàcc yu ñuy def naan maay waxal selbe ñoom waxaluñ selbe taqaliko naa ñoom bàyyante naa ñoom àddina ak àllaxira suñ deyee du ma dem bu ma deyee bu ñëw te maa ngi nii tey di wax naan leen lii day am gan yi di ci rek seen bët kon maanaam nañu indiwaat suñu xel ci yàlla tey sant suñu chef religieux yi wax dëgg yàlla sant naa leen ndax dama naan suñu chef religieux yi ay nit yi yàlla lañ mhm. billaahi wallaahi watallaahi mhm. soo xoolee bis booba dafa seddu guy mhm. nga xam ne yàlla kontaan na bis boobu suñu borom kontaan na ci la géej gi ñëw jën yi jën yi lambaajoo macha allah kon ñoom waroon nañoo teel a wax ma di leen ñaan lillaahi wali rasulihi ñaanatuma ko yàlla ci sa sama réew. Mhm. bu dara amatee. Mhm. maa ngi ñaan chef religieux yi. Mhm. maanaam na teel a jug artu. ñoom la fi yàlla teg. ñoom ñooy sunu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. muy tariqa yëpp. bàyyi ma kenn. ndax ñëpp ashhadu an laa ilaha illa allahu la ñuy wax. wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam ñëpp wax. nañuy taxaw yenn saa yi rek. même bu dara amul sax. ñu woote chef religieux yëpp daje. woote def ñaan ci réew mi tamit ñaan président de la république. Mhm. jumaa yi nga xam ne ñoo des. Mhm. ndax jumaa kenn moom ko. Mhm. dañ na innal masajida lillahi. fala tad'u allahi ahadan kon maa ngi ñaan président. Mhm. fi mu ne macha allah. Mhm. alhamdulilah li ñu gënoon a métti muy ñun sénégalais yi li gënoon a métti mooy. Mhm. Euh, couvre-feu bi. métti woon na ma métti woon na kii ndax yenn saa yi. foo dem vingt et une da ngay daw dugg sa biir dëgg la. day jar sax nga togg sombi wala nga wala nga jël benn affaire tàngal ko lekk. mais léegi alhamdulilahi rabil alamin teggil nañu loolu yëpp hmm. bu ñu neexee ñu dem débiterie yi hmm. commandé di bi lekk bu ñu neexee ñu dem fast food eh. bu ñu demee ñu bu neexee ñu dem Erika hmm. laajte ci kën yi macha allah alhamdulilah kon di ko ko sante di ko ko sante bu baax dinaa bañ ko sante yàlla julli ci Seydina Muhammad alhamdulilah di ñaan yàlla senegal réew mi jëm kanam di ñaan yàlla Sénégal réew mi jëm kanam. ci ñaan googu. Mm-hmm. chef religieux yi ñaan. Mm-hmm. moo tax bokk na ci li tax ñu bàyyi Guy Marius Sagna mm-hmm. di ko ziar. mon di ziar Assane Diouf. mon frère di leen ñaanal yàlla. yàlla aar leen sàmm leen. yàlla jàppale leen ba seeni njaboot lekk seen njëriñ. loolu macha allah dañ ciy kontaan di ci remercier. président. te gis nga ni ñaar ñooñu taxawaay bu ñu taxawee mooy taxawaay bëgg seen réew rek la ñu taxawee. wallaahi liñ leen di jàppe yëpp ak liñ leen di dóor rek liñ leen sonal yëpp. Mhm. ay patriote ñoom loolu mooy patriote. Mhm. ñoom bëgg seen réew rek moom moo tax ñu def loolu. Mhm. bëgg seen réew moo tax ñu def loolu waaye dama leen di ñaan après xam naa ne incha du ñàkk. Mm-hmm. Guy Marius Sagna dinaa ko seeti moom frère Assane Diouf. mi mm-hmm. <laughs> nga xam ne. <laughs> sa la <laughs> sa la. Mm-hmm. xam nga rek. Euh, xëy na du moom xëy na man du ma ne Assane Diouf la sax. lu ma doon wax yëpp baal naa ko ko. mais incha allah xam naa dinaa ko seeti man. ci ton yàlla bu ma amee jot rek su ma amee ndigal sama borom rek dinaa ko seeti ñu waxtaan ndax ku ci mel ni Assane Diouf mën na woo ay xale. ñu dem ci àll bi. di bay ci tool yi. te loolu bu ñu laajee. financement dinañ leen ko jox. Mhm. gis nga man man ma seen président day tëj frontière yi. Mhm. comme ni si Japon dexoon mhm. comme ni Chine defoon. tëj ay frontière kenn ku ne loo mën a liggéey de ba liggéey ay dàllam. conseil local bi mu doon dox ñu dund ko. mécanisien mécanicien loolu gis nga ñun barke Seydina Mouhamed ñun mën nañu yor suñu bopp. jéggaane wuñu am nañ ko am nañu mm-hmm. gaz mm-hmm. am nañu géej gaa ngi napp baarakallahu mm-hmm. ñun li ñu li ñu am ci jën bu ñu ko doon lekk kenn ku nekk da nga toll ni fa tey waaye àll bii mën nañoo bay ceeb am na soo xam ne ndox rek lay doon mën nañoo bay ci suñ suñu ceeb li nooto bee di bay suppame jaxatu ñam bi matañ say ndax ñun mënuñoo yore suñu bopp barke Seydina Muhammad Sénégal mën naa yore boppam. Mhm. yëpp mën nañu jël àll bi nga xam ne li ma naan inna ardallaahi waasi'a. Mhm. suufu si yàlla si ak a yaatu. Mhm. billaahi senegal yëpp buñ jógoon di liggéey ñii di liggéey li nekk ci mbay mi kii nekk fii ki nekk fii kii nekk fii kii nekk fii. macha allah du jar benn réew sax di du ñu am soxla sax ci benn réew. dëgg la am soxla ci benn réew. ndax ñu mën nañu yore suñu bopp. di ko ñaanaat. Mm-hmm. Guy Marius Sagna. Mm-hmm. nañ dajale xale yi. Mm-hmm. ndax Sénégal jeunesse kese la ndekete. ci laay maa ngi doog a xam Sénégal li mu am ci gune. nouvelle génération. yaakaar réew mi nañ leen dajale kenn ku ci nekk rek seetal gox ba nga nekk. maanaam ñu dajale mënoon nañoo dem ba dem ba développement am ba Sénégal développé développement boo xam ne. ñu ñii dëkk yëmbal benn baraat. gis nga li ñuy waa Sandaga. du ñu dem Tilène. Mm-hmm. la ñuy soxla dañuy day nekk tilleen loolu yëpp ci développement maa mm-hmm. laa gis daal sama réew jëm kanam Sénégal mm-hmm. pour dama naan Sénégal man Selbé Ndom mii maa ko moom sama Sénégal la danga ko dem naa Nairobi di dem màkk def escale Nairobi yore 100 euros bëgg boisson ndax Nairobi dafa tàngoon. Mhm. période màkka day tàng xaw ma nag yan période noonu. Mhm. bi ma demee di jënd jox ko san euro euros pour jënd ñaari ñaari coca. Mhm. xale bu jigéen bi ngande di taxaw ne ma war maa delloo dem dugg di takk ay mbuus est xam ngeen Nairobi am na mbuusu galaas si juróomi dërëm yu ñuy jaay di mbuusu galaas ndox. ndoxu juróom Nairobi am na ko. kooku di ko takk fi nga toogee di xaar avion bi. di ko takk ay mbuusu ay ay mbuusu juróom xaw ma lu ñu koy jaayee foofu ma jox ko mu bañ ma delloo mais damaa ñëw fëggal ko taabal ji mhm. li muy laaj xaw ma ko mhm. ma ne ko sama wéccet mu jàbbatu toog ma ne ko man je suis sénégalaise mhm. la gën a dof benn waay jóge fële buy dem États-Unis na ko laaj jox ko xaalisam ne ko cent euh, cent euros la la ma jox ci ñaari bu téy koka ne ko loolu la am kooku moo dindi xaalisam joxe man li ma doon dama ci fier soxlaw ma nekk américain wala italien wala française wala leneen. Mhm. je suis fière d'être sénégalaise. ndax kenn neewul ne waa France ay gaynde lañu. Mhm. Sénégal lañu wax ay gaynde lañu. waaw ah, nous sommes des lions nous sommes et des lions. Mhm. macha allah kon ñun amul lu ñuy ragal. waaye maanaam suñu jàmbaar man maa ngi bëgg man Selbé Ndom ñu woote ko ci. maa ngi koo liggéey. jàppoo. man loolu laa gëm nii leneen soxla ma ko sama réew. dëgg la xeex sànni xeex. Hmm. tuur deret. Hmm. gëmu woon bugguma ko. Hmm. Sénégal naa nag mën naa xeex dóorante. mën naa mën naa teg gal gal su ma la tegee fii dama lay botti nga jàll <laughs> mais loolu. ñun dañoo am dignité am fulla ak fayda. ak personnalité. yow mii ni ngay doon doon gune tey boo defoon sa costume. ak sa cravate taxaw. dañ lay jox cër. yàlla moo ñu may rafetaay mm-hmm. yàlla moo ñu may jom mm-hmm. kon nañu mottali loolu